Mbàkke taalibe yëpp nee nañu nga nefi fi rek ànd ak ñun rek dimbali ñu ci kàttanu suñu boroom Mbàkke ñoo ngi ko yelwaan sëriñ bi dina ko yelwaan it nga xam ne ñu yow dara yitteelu la dara yitteelu la lu dul sëñ Touba gam la yoo ko kenn ci ñu jëkk ñeeg ñu mujj ñi gisoo kenn koo xam ne kii mën nga koo weccoo sëriñ Touba loolu nag Mbàkke moom la la nit ñi faye ndax yow xam nga ndax sëriñ bi du ku nekk a koy toog ci jotaayam bi waaye nii ñu la xame ba ñu fi ñëwagul it ñi ñu jiitu woon nee nañu nii lañ la xame bëgg sëriñ bi ne ci sëriñ bi rek moo tax yow rek ñu mën a yóbbu ak sa njaboot gu tedd gii nga àndal ñuy say rak ñu bëgg Mbàkke nga dimbali ñu ñoo ngi la koy yalwaan di ko yalwaan sëriñ Touba. dimbali ñu rek ànd ak ñun ndax looloo des ci liggéey bi nga la Mbàkke buñ lay gis dañuy gën a sawar buñ lay gis dañuy gën a pastéefu buñ lay gis dootuñu gis dara lu dul liggéeyal Serigne Touba te foofu rek nga ne nañ ànd rekk ngay wax liggéeyal Serigne Touba rek nañ ci ne bu dara tegu tegu ci suuf ñuy dem ba ca kanam moo tax sa naal yu naal yii yu rëy yii nga naal ko Mbàkke yàlla na nga ko yeggale yàlla na nga ko yeggale ci sa sago te ñu ànd ko. Mbàkke miin na la suñu sëriñ bu baax ba suñu wayjur bu baax ba suñu yaakaar Cheikh Saalihu mooma ni dinaa yebal a Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu ñëw teg si xeer wu jëkk wa yàlla def li mu def mu defar plan ba waaye moom amoon na gis ci yow Cheikh Mouhamadou Lamine ñëw ànd ak yow fii nga taxawu ko dimbali ko dimbali ñëpp ndaxte yow Serigne Touba ngay gis bu ko dara yàqu bu ko dara tege suuf mu ànd ak yow ñëw fii ñu teg xeer wa noppi woo noppi woo ba Cheikh Sidil Mokhtar ñëw sa xarit ba sa sa sa sa sa sa àndandoo ba sa sëriñ ba sa lépp ni la ni la mu noonu rek yaay sama jëwriñ nga jël sa jëmm ju tedd ji ni weer wu ne dinaa ko ñëw fii taxawu liggéey ba ca gas ba ca sëkk ba ba mu mel ni mu mel yàlla dogal la mu dogal ca moom mu dem àjjana nga téye liggéey bi yeggale ko def ci li nga ci def muy ay milliards yu bare bare bare wër na Amadou Bachir mii ba pare it di ñu ci tooñ di ñëw di seet si ba yàlla tagal nga ubbi ko te muy bés boo xam ni aw ñam la woo xam ni bañ ko lekkee ba léegi reesagut waaye sa jëmu ci tedd ji nga ñu baaxee ñëw fii Mbàkke wecc na lu ne lii Mbàkke jomb la waaye dimbali ñu yàlla na yàgg de dimbali ñu rek ci barkeb Serigne Touba addiya yi nag taalibe yi boo nar addiya waaye man sa jaam-jaamaat bii nga xam ni loolu rek laa bëgg a doon man bëgguma doon dara lu dul taalibe Serigne Touba ak jaamub Serigne Touba bugguma doon dara lu waaye am na ko jël te ba ma ma doon taalibe Serigne Touba ndax moom laa xam moom la ma sama wayjur xamal moom laa xam ci laa nekk du ko civilisé du ko complexé du ko dara Serigne Touba rek laa xam Mbàkke te it danga ma cee dimbali danga ma cee jàppale dimbali ma ci mënuma la fay liggéey bii bu ñu demee ba di ma ci tudd yaa ma ci jàppale dimbali ma ci moo taxoon ma ànd xale yi ñoo nekk nii ma xam ne taalibe yi bëgg nañoo siyaar si bëgg nañoo egg si waaye mënuñu ko maa ngi jéggalu sax bu may tëdd ab lum dara taxut nag Mbàkke Tuubaa xam ni nu ma mel moom la ak lu ma am moom la te it li may def sax dama koy poos rek ndax lim ma jox Mbàkke joxuma la ko waaye ñaanal ma rek man de Lamine mii ñii toog nii bu daga doon tey jii ñu tër ci kenn rendi ko na maam Cheikh Anta defoon dinaa ko def barke Serigne Touba wala bala ma leen a rendi sax rendi sama bopp ndax moo ma gënal loolu lépp nag sante ko sëriñ Touba sama addee jii nag maa la ko jox ci sa liggéey yu baax yi nga nekkee bariwut wut xeeb naa ko ndax dama doon sant ca ubbite ga ma ni damay santaat tey ñaan nga ñëwaat Mbàkke ma santati dimbali ma ngir jëmi sëriñ Touba. ak mbaaxug yonent bi nga waat nekk fi rek ñeenti walis yi bu ci ne ñaar eh, ñaar téeméeri million la def ak juróom fukk muy un milliard maa la ko siyaaree te di ko xeeb xeeb ko lool bëgg nga rek nga dimbali ma boo dellu seetee sama borom dimbali ma ba man lu ko ëpp ak it jox sama bopp te bàyyiwuma ci dara waaw ana Ablaye waaw. Sëriñ Tuubaa dégg nga jërëjëf jërëjëf. jërëjëf sëriñ Tuubaa. jërëjëf Mbacke. dégg ngeen Cheikh Amadou Mountakha. jërëjëf sëriñ Tuubaa. day na Mbacke Mbacke jar jar nga lu kopp de. Mbacke jar nga lu kopp de. lépp sëriñ Tuubaa nga koy def. jar jar nga lu kopp de. waaw waaw. Cheikh Amadou Bachir. comme un milliard un milliard un milliard dai walaay walaay walaay Mbacke walaay Mbacke jar nga lu ko jërë jërëjëfati Mbacke jërëjëf tëgg la kenn dégg ko lu dëgg la dëgg wala ñooñu sëñ Tuubaa ñëpp sax dàkk ci sant ko sax dàkk ci nekkal ngir boromam moom doon jaamu ak yeneen ba doon topp daal sax dàkk ci sant ko sax dàkk ci liggéeyal ko mu bunt gi yëpp moom yëpp mu tàmbalee fa gi jax nañ ko tey ak ëllëg ndax lépp tey ak ëllëg dégg ngeen ñu ñëw li ñu ko doon barkeeloo loolu da ko ber li fi taalibe yi ñëw doon ko def ci ger gi te mu des daf ko xawma nag nu mu toll waaw waaw ndax président tamit yebale na fi lii tànt bi yëpp moo ñu ko defal ak Antoine mhm. moom it indi na fi lu lu bari ma nag yaa nga fële mat nañu téeméer ak giléem yeeg lépp waaw lépp rek lépp yow rek dara jeexut waaw dara jeexut waaw <laughs> ah, mi nga am na am na mbuus mu ci